journaliste yi yéen nag yéen yi nga xam ne yéen a rambaaji réew mi te tas ko yéen a rambaaji réew mi tas ko de parce que journaliste boo xam ne amul éducation amul dara maanaam lu mu dégg wax ko lu mu dégg wax ko maanaam bu ñu la jëndee nga jar luñ la def jikko yu tuuti yi nga xam ne moo nekk ci journaliste mosuma koo gis suñu tool yi lu xew ñoom te nit ñi lu ñu wax ni journaliste yee ko wax koo xam ne kii nag loo wax ñu def dëgg la da ngaa war a xolaat sa bopp bu baax li ci toppaat nag mooy ndax nag ñi ma wax lépp ak man mii ndax nag ñun nag ñun ñi ci des nii ñoo gën ñooñu ma wax ne gënuñ leen de gënuñ leen de parce que sàcc yi ñu na agresseurs yi ñu na tappalekat yi ñu na fen yu rëy yi ñu na wor yi ñu na wuri yi ñu na rabaay yi ñu na loo xam ca gaayee ba leen koy wax mi ñun dañu àggul foofu rek nañ seetaat suñu bopp jikko yàqu nañ dëppalaat réew mi nu ñuy dëppalaati réew mi nag dëppalaat réew mi mooy delluwaat ci yàlla mu tedd mi ñu indi woon te digal lu di ju leen dong ci mën a delloo mooy kilifa yi delluwaat nag yaraat donga yi delluwaat ci door yi taal yi taali jàngu yi ñoom ñu nangoo jox seen doom yi ñu nangu leen a yar sa tar bi leen saatu mu taqee bañ màgg ci ba bu ëllëgee duñ mën a jàpp dellu ci yàlla dong ñu may dimbal su jikko yàqu yii nit ñi seen jikko yàqu na commerçant boo xam ne bii bu bu bu bu bu bu dara seeree boo yëgee ne seer na ba yowaaji seer nga denc ko ba mu seer nga jaay ko say dëkkandoo rey rey leen ci ba noppi naan naan ak gouvernement naa nga yaa gën a bon gouvernement bi yaa gën a te loolu gis ngeen ko fii commerçant yoo xam ne daje nañu xaalis bu dul jeex rëng ko amu ci kenn koo xam ne nangu naa dajeeg borom defaraat industrie boo xam ne bii da nga cay jël ay ñu ñu liggéey wala may ngërën ko ca banque ba inna la seen yëg nu so sahaba wal fita fi sabilillah fa basiru bi azabin alim yow ma yow ma gis nga alal boo ko rënkee ba faatu yowmal qiyaam ci koy tàngal di la ko ñaas di la ko ñaas di la ko ñaas ba ngay tàmbi sawar bokk julli yi nañ delluwaat ci diine nañ delluwaat ci taalu dañ delluwaat ci jub dañ delluwaat ci bëggante gouvernement bi na yërëm doomu aadama yi dimbali leen jàppale baykat yi ci ñi gën a sonn nañ bokk noo ngi nuyu ñëpp noo ngi sant ñëpp noo ngi gërëm ñëpp